Ladder, ladder. Uh, man. Ili. Bayle. Yow loo xam ne muy tux. Ili. Ili si nga xam ne. Bayi bayi bayi bayi bayi soxla. waaw waaw waaw Ili. Bayi la bayi la. Sigaret si Ili bi baaxul man xam naa ne mu la wax jaar naa si yow jaaroo si. Ili. Bayi bayi. lii baaxul. yàlla tere na ko yonent bi wax na ko. Mm. ala gese na mm. yoo xamoo jàngoo yow jàngoo lii lii lii bokkul bokkul édition bi ça va man may tuq léegi ah commencé naa loo xam may tuq ah daaw daaw sama xol moom sama xol mooy tàng mooy tàng sax du léegi bàyyi leen bàyyi leen ma tuq ba am di tuq ma tuq sama ko ma mandi yaa dégg mu mu mën a dakkoon fii. maa ngi dugg xëy na yàq sa xol bi. Idi. bàyyil bàyyil rek. yaa ko Fama bàyyil dama am naa problème nga am di sox. sama yaay. saa yaay boobu xool waa saa yaay góor ñi dañuy dugg fii di génn di dugg di génn ah di ka seet ah, amu fula amu fayda ah góor ñi di ka seet di ka seet di ka ku ne ku ne di dugg di génn ñëpp ah, léegi doo doo doo mu lay jaay affaire naa la naa la naa la ma ma ma sa yaay la te xam moom lan laa ko mën a wax. sa yaay la ah aywa eh, njëkk oh, ak teraanga mooy ko bëgguma kenn. attends nan la ma bàyyi sa fi. ko dafa génn. yaa ngi dégg nit. yaa ngi yow sa yaay su ma gisee ñooñu ñëpp. di ko def man mën naa jékki-jékki rek dugg yaay dugg waaw est-ce que yow kon sa yaay dina ko dina accepté. yaay dugg wala foo doxal sa yaay. dama loolu junni na xaarale ko. waaw man ñii dugg laay ñus. benn far benn. ñooñu fël bi fël bi laa bañ. fël bi mi ngi fi. ne ko fi waaye fël bi fël bi fël fël bi chaque heure mu ñëw. fël. tamaan rek moom moom fë fë fë gën a fële man fë fële mooy mooy mooy sama xol. fële bi amul jàmm. ah fële bi dégg naa ko kër kër Baye Sall. fële bi dégg naa mu jël yaay Fane. yaay Fane. mu koy jël. yaay Fane man mel. mel na. moo koy jël. fële bi xanaa ñëpp lay jël. ah waaw waaw waaw waaw waaw léegi nooy def léegi nan lay def. dañ ko rey suul ko. waaye foofu lay lay lan te da nga bëgg affaire ba nga wax nga nga nga ko sa sa jëkkër sa jëkkër day doxaan day doxaan day doxaan fii ka ñëpp wax wax. xam nga bu ko nga wax xirim laay dem na jabaram. pël bi day doxaan. boo boo boo tëdd sama nga. lu ma wax. rek ma wax ak yow di di maanaam jox xaalis. waaw yaay ñànku lay doxaan. bu ko tudd sama tur bu ma wax man. kon yaay kan laa koy wax mu si tur. ñeneen ñi wax ñeneen ñi. dama doxaan man la xarit yaay ñànku yaay ñànku lay doxaan loolu baax na. sama tur laay bañ. kon yéen suñu yaay lay doxaan. loolu laa koy wax. maanaam bu ko tudd sama tur de. sëñ bi lu ma tudd si tur ñànku. maa ngi tuux. waaw waaw nga waaye. man tuux xaraam si xul sa. waaye jóge fii comme comme tuux comme comme tuux moom waaw waaye yow nag léegi nooy def yow. maa ngi ko waxul. allez c' est ça c' est kii gerte na. eh. waaw c' est vrai. waaw allez c' est. eh naa ko bàyyi. waaw asuwaar asuwaar. bu ma tudd sama tur nag.

salaam. ah xaaw. xaaw du rek fi daa génn. ah jëwal xaaw. maa ngi nii. ça va. ça va bien. xam xamoo lu ma fi indi. waaw. xaaw. waaw. waxuma bàyyi suñu yaay. yaa ngi dégg. sa yaay lay doxaan. sa yaay ban. yaa ngi ñàngu. yaa ngi dégg. waaw nga bàyyi dof dof loom gi bëgg jigéenam na ko indi fii ci kër gi. yaa ngi dégg. waaw man xaw xaw na bàyyi yaa ngi jàmmul. waaw yooyu nga def yëpp sama nekk sama fuu. na bàyyi yaay jaamu mi doxaan. yaay ñànk lay doxaan. bëgguñu histoire. maa la gën a bañ histoire yaay ñànk lay doxaan man man bëgguma xaaray. rend ko ak naan ndox moom laa yemale. yow doo ko rey maa rey. xamoo nag ku xamul buur Saalum ñu wax ko buur dee na kaw. yow noo tudd. man daa laa tudd. baax na jërëjëf. nee ko dinaa ko lijjanti. dama ne na sa xol frigo na sa xol bi mel ni wan na gu mbaat mbootu dinaa ko lijjanti lii maa lijjanti mën ngaa dem. asalaamaaleykum wa rahmatulah. bu ma waxaat. daka da ngaa amatul loo lii da lañ naan njuuma noo sant mu ne la wel ma dem ci yaayu njànk mu may jaay yoo baax sama góor la sekkuñu dara fii la may fekk lii maa koy koy lijjanti yaa ñànku muy moom départ na for na bëdd yaa ngi for bëdd nelaw sa diggante bi yow kese ah mbaa jàmm la ah. lu xew allah ak a métti lay bañ a mën a sonal nit la jàppee kenn kon xam naa nelawoo guddi gi yëpp naan ngay garab ah ana ñaanku waaw massa massa massa massa massa massa xam naa ne moom bañ buy métti àndul ak wax yu bëri man daal lenn moo ma tax a jóg suba dafa am waajoo xamante ni dama la koy andil waa ji nag France la nekk ñëw na. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. te kenn gaañuwul kenn gaañuwul. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. nekkal nit daal waa France lay jóge te France lay làkk tubaab la. alhamdulilah. yalla ñew na nit ñi tey garabam way nit ñi tey poso na wér na ah wér nga ni sedd na eh, alhamdulilah kee bëri feeb yéen nit ñi tey garabam nit ñi tey poso na jërëjëf allahumma amin laa ilaha illa jërëjëf jërëjëf yéen man nag li may def def naa ko ba pare li may liggéey liggéey ko ba pare damaa bëgg nga teey ànd dal te xam ne parisien laay andi parisien laa wax lu mu làkk ci topp war nga koo mën a tontu. man dëkk yi am Marseille am Lyon dëkk bi mu nekk xamoo ko. ci biir dëkk bi. <laughs> Grenoble. xam nga Grenoble ku du fa dëkk tubaab yi kàlla Grenoble lay jóge ñëw. Si nak bu laké tubab war nga ko mën tontu yaakaar na ndax lu mu gàtt gàtt def nga école tu as fait les bancs moi aussi j'ai fait les pas on peut débrouiller dans notre français. pour lui parler rendre service et les échanger. mais pas comme ça. <laughs> pas comme ça. Ah, ah, c'est le français gueule. Moi, je le parle comme le veut, Je le parle comme veut, C'est le France, c'est le France de gueule. De toute façon, ce que j'ai en train de dire, il, faut, il, il devra l'entendre, c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Si. Si. Hein? Hein? Mais de toute façon, je sais que si, si, si, si, si, si, si, si, je le ramène demain, mm. tu vas bien communiquer oh. avec lui. C'est bon. Ah? C'est bon. c'est c'est c'est compris. bañ buy metti àndul ak wax ju bari jërëjëf. ah yow li wax soxla maanaam bañ metti àndul wax du bari xanaa ma la soxla ba pare na nga rek leen nag te bu ñëwee lum la jox dafa dina jàpp la man damay liggéey damay business. ma amul bañ bi laa wax damaa bëgg nga wax damaa bëgg nga ko andee bu ñibbi lu mu fi bàyyi xam nga li war a génn dafa dina jàpp la nag. fa li laal xam te ngaa jël karité wala xorom nga say ko sa bëñ boobu comme comme comme comme fi ñu toll nii yàlla ñëwagul mënoo jënd ordonnance xam naa loolu sa géwél a ngi ne yorul dara jëlal karité nga ñaaxut sa ñaaxut sa bëñ bi waaw ci karité maa xorom nga galax di kooku